continuer 2024 ça se fera sans vous. xam nga li bu wér moo daaw te lii denc ko élection sans Ousmane Sonko mënut am Sénégal. fu ngeen ko teg. fi ñu ko teg leer na teg nañ ko fu bëree bëri mais li bu wér. li ma la dëgg la yëngal ngeen dëkk bi benn fan ñaari fan. li ma li ma mais mais loolu mënul li ma lay wax ci suñu kanam la nekk néew ci suñu gannaaw te nañ yónni yàgg élection sans président Ousmane Sonko mënul am Sénégal loolu jéem koo xalaat sax mooy nax sa bopp. parce que xam nga xam nga yaa ngi loolu mooy loolu mooy loolu mooy loolu loolu mhm. liñ gën a bëgg nga ne loolu du fi amee loolu bu amee sénégalais yi la neex te sénégalais yi wane nañ ko ne loolu mun na nekk. mais sénégalais yi boo nee li ci ëpp li ci ëpp euh, ci pouvoir bi lañu lañu àndal parce que loolu la élection yi mujj yi wane. xam nga xam nga damay dégg barki démb dégg naa sa benn mbokk journaliste yi. Mhm. wax ne président Ousmane Sonko biñ eggee ci législative yi nee na su ma bokkul élection du fi am loolu c'est faux waxul dëgg Ousmane Sonko bi ñu rekkalee liste Yewwi Askan titulaire yi li mu njëkk a wax mooy erreur la boo xamante ni ñi doon déposé liste yi ñoo ko def mhm. ku ci nekk fàtt fàttaliku na point de loolu seesu seesu dee ci fàtt ba pare ni Macky Sall li mu ñu bëgg a poussé mooy dafa bëgg ñu poussé pour ñu gedd élection yi mais duñu ko gedd dañuy dem ci élection yi mais avant loolu tamit déglu rek déglu rek xam la woon na ne élection yi du demee rek yemu ca génn campagne pour liste jox ko 84 députés kon kooku ko wax loolu mboxul

Sénégalais 14 millions d'habitants li ko wote lépp mu 3 millions tamit mi ngi nekk président de la république. Ah, kon nag li ci ëpp tamit tey jii sentir nañ ne lañu àndal moo tax ñu taxaw ne Sénégalais yi duñ seetaan loolu tax man la Sénégalais yi duñ taxaw seetaan ne président Ousmane Sonko du nekk candidat mhm. koo xam ne amul doole génn këram jamono ji amul kattan gi nga ne mën na empêcher élection en plus yaa ngi wax sànq sénégalais yi souvent dañuy wax ne kaddu yi dafa xaw a rëy mais tamit kàddu yi rëy na cheikh bi nga baal ma parce que bu ñu ko dégloo mu ne euh, su ma bokkul ce sera le chaos loolu aussi même bitim réew am na ñoo xam ne rafet rafet lu wuñ ko xam moo daa waaye war a analyser mhm. ndax loolu man man na ko wala munu ko la a nekk. est-ce que yow yow yow mën ngaa xalaat mën nga pare léegi lan moo lan moo war a tax ñu war ko embêcher candidature ci war a tënku. non jamono yooyu. am daan nañ Khalifa tooñ Sénégalais yi. 14 mhm. millions de Sénégalais yépp ci ngeen tooñ te jamono yooyu ñi ngi lijjanti pour ñoom ñu bokk jamono yooyu ñu bëgg privé koo xamante ni tooñul kenn ñu ne ko yow doo nekk candidat loolu est-ce que yow mën nga ko imaginer mën ngaa rafetlu ba pare bëgg